salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal mbokk yi tey ñu ngi si fii si yi seet si benn champion bu mag champion boo xam ne tey kenn dootu ko naataable si milieu élevage champion la boo xam ne ku yàgg liggéey si xar ku yàgg développé euh, élevage du Sénégal. asalaamaaleykum waaw maa ngi leen di dalal fii ci caaro yi. waaw yéen waa référence actique waaw man la Macoura dëkk Thiaroye-sur-Mer. waaw nekk ci affaire yi di jéem a lu nag ndax nag affaire yi moom bëgg-bëgg la. waaw man dama ko yàgg bëgg depuis bi may xale ba jimmi tey boobu ba léegi maa ngi ci waaw yàlla nag boole ma ay ñu baax ku su mel ni ma Ndiaye mii def émission bi moom waa ju baax la te sama lépp la te sama gaañ la te moom tamit ku bëgg jur la waaw mun naa ne jur moo ñu boole comme li ma la yàgg wax rek mooy jur doon na loo xam ne nii ñun sax amuñu fayam ndax jur moom boole na siwil ak policier boole na euh, nit ku ndaw ak ministre lépp lu jur daal boole na lépp. maga xale xale jura leen boole waaw kon daal jur jaa yaatu. waaw mbokk yi waaw tey sama invité gis ngeen ko noonu sama invité nag yamul si xar yamul si ginaar kese euh, fekk nañ fi ay pigeon mais Macoumba tey franchement tey xool sedd na parce que tey boo xoolee tey kër gi pigeon yi fi nekk façon race bu nekk mi ngi fi parce que gis naa fi dafa mel ne gis naa fi ay voyageurs manteau gis naa fi ay ay bouteille allemand franchement daal lii daal xam naa ne euh, mbokk yi élevage daal moo mën lépp daal. waaw ma Ndiaye sama waay nga yow moom xam nga ne boo ma xamee xam nga ne man liggéey rek laay def waaw que naa la présente pigeon yoo xam ne lu ci bari ñun bitim réew lañ koy gën a gisee waaye da ngay ñëw sama kër nga fek ko fi. ay manteau manteau beauté muul maan dëgg la gars yi am nañ ko nag ñu ngi liggéey waaye bu loolu man da nga gis ay miracle yoo xam ne ni man maa leen travail fii sama kër waaw yoo xam ne ay pigeon la yoo xam ne ay deux tons lañ man maa leen travail man pigeon man dama bëgg pitax bu rafet daal pas ay pigeon maanaam design waaw man design lay dox ci pigeon daal design élevage waaw fi ngay gis yëpp ay façon couleur yi pigeon mais pigeon yi nga xam ne deux tons la nii kii moom ban façon xeet na waaw kooku moom la ñuy wax miracle miracle miracle puusal ma walla ko fii sax gën la ko wan moom la waaw ah d' accord miracle yi day doon mooy pigeon yi nga xamante ne day doon deux tons deux tons waaw bi bii côté dafa doon rouge bii côté bi doon bleu waaw yii nii yii moom am naa ci yu bari bari bari ndax maa ko liggéey façon bu ne laa ci liggéey waaw ndax da boole travailler ba yàlla def moom mu ñëw ba am li nga bëgg. d'accord ñoo nekk yëpp. moom damay damay gis yeneen xeetu voyageurs yoo xam mooy gars yi ñi nga yi nga xamante ne moom la ñuy def compétition yi. voyageurs compétition yi la am na am na différence. waaw voyageurs yi bariwul différence. différence bi ngi dépendre si sa goût. waaw ndax yow li nga bëgg ak li keneen bëgg est-ce que yem na. waaw. man yii moom laa préféré bëgg ko di ko yar ndax man si lay sentir sama bopp daal. am na solo waaw yooyu yëpp baax nañ daal waaye man yii lay sentir sama bopp. waaw mais kon champion kon dañuy delluwaat si gétt gis naa fi benn mal champion boo xam ne kii. ah kii da jekk na moom kii moom maa nga gis nga boole ak ñetti jabaram. kii bu ñu pare foo ñu waxtaan si càmbar si. waaw maal bi nag kii doomu Pam Ndaw la. waaw doomu Pam Ndaw la waaw. d' accord doomu Pape Ndaw la. waaw doomu Pape Ndaw la. d' accord moom moo moo bi bii si biir. nu mu nu mu nu mu def ak moom moom. bale la mooy différence bi foofu. non xam nga tey boo xooy yoree li ñu naan euh, mécanicien booy liggéey euh, moteur oto da ngay yor clé yëpp. d' accord tey élevage foofu lañu tool da ngay yor moom maal bi noo ko tuddee moom nu mu tudd. kii mooy sempi mooy simpi. waaw simpi la tudd. d' accord kooku après dañ koy càmbar waxtaanee ko. waaw loolu am kooku dañ koy càmbar waxtaanee ko. <laughs> dëgg la waay incha allah rabbi kii nii euh, mooy Pablo. allez. moom fii. waaw moom mooy. waaw moom mooy tout tànk bi. moom tout tànk la. tout tànk la waaw. mi ngi si ñaata mois. Pablo maximum dugg na ci ay euh, onze mois. ay onze mois yooyu. kon kii ah léegi maal bi nag moom kooku mooy kan moom. waaw maal bi moo tudd njool mi njool mi. moo tudd njool mi. waaw moom fii la juddoo moom tamit. moom fii la juddoo. waaw waaw kon kooku après foog ñu càmbar ko. dëgg <laughs> ñu càmbar ko après. mbokk yi ñu dugg nag. wanaat leen beneen gétt fii. mais mëkku nga fii moom. nombre de femelles bi fi nekk. waaw. benn bu si nekk dafa sang boppam la wala ñoom ñëpp ñoo bokk sang. waaw xar yi ni euh, lu si bari ñoom ñoo bokk ndax man mun naa ne sama xar yi ñoom ñoo bokk tey mun naa ne kii ak kii ay seex lañ. waaw bii ak bële ay seex lañ seex lañ. waaw kee seen mag la. waaw. waaw ñoom maal yi nga yi nga yi nga yor fii ñoom ñoo ñoo jur mbootaay. waaw maal yi ma yor fii ñoo jur mbote maal bu si nekk am na ci ay doom daal waaw à part kii nii moom euh, moom sama benn xarit moom laa ko yóbbuloon tëblu foofu gis naa fi xar bu ma neex nag mooy cuulul bi waaw cuulul bi euh, surtout euh, kii la surtout subeeru subeeru bu nekkoon ci am na foog ñu càmbar ko après waaw <laughs> foog ñu càmbar ko mais fii nag box bi waaw foof noonu moom xar gis naa fi gis naa fi trois femelles grand trois grandes femelles. waaw trois grandes femelles yooyu mooy xar yi nga xam ne xar yi xar yi nekk enceinte ñoon foofu la ah, ñuy nekk. ah ñoom dañoo tëbu ba dix. waaw bu ñu tëboo ba dix daal fii nga leen indi. waaw fii laa leen indi ci mbaar bi nii. waaw ay champion femelle lan ay femelles yu am doole lan. waaw mbokk seen émission dundal gétt tey def na tour du box xool gétt yëpp càmbar lépp léegi nag maa toog ak sama invité nii jàkkaarloog moom fas yéene waxtaan ak moom naka lay dundee si gerte gi. gis dama gis liggéey bu mucc ayib bi nga liggéey tey naka nga mën a dundee loolu tey sa milieu élevage la mooy la mooy sa secret. waaw élevage moom moom li ma la wax rek mooy li si njëkk mooy patient ak bëgg-bëgg ndax affaire moom boo ko bëggee moment ah, moom dina la jaral lu ne xar nag dama la bëgg a wax benn affaire xar munoo am xar am xaalis. Ah, munoo instant yi fi ñu toll boo tolloo ci liggéey munoo am xaalis am xar dangay ngay mun a muñ xaalis bi tuuti jéem a liggéey ba ci kanam ndax loo fi yor lu baax. bu dee yow xaalis la tax a jóg champion ñëw jël ko. toog liggéey ba si kanam daal. waaw loolu mais tey dama fa gis tey bi ma càmbaree gétt gi yëpp ma gis ay différentes mal yooyu yooyu yooyu liggéeyee naka nga mën a def ba tey xam ne kii doomu kii la kii doomu kii la. waaw xam nga tey mun naa ne dama fi yor simpi mooy sama maal bële. léegi maal boobu tey macha allah yàlla def waaw mu doon mu doon mu doon mu doon maal bu extraordinaire maal boo xamante ne jafe na si mbaa léegi nag bi mu juddoo moo xool macération yi mu yor moom am na yax am na doole am na gabari léegi nag muy des lenn muy lu yokk hauteur bi léegi nag yàlla def na mu juddlu benn jeune mâle jeune mâle bi mu tuddee woon njool mi njool mi moo nekk nii sama ginnaaw njool mi moo nekk nii diggante boobu njool mi amoon tolof tolof amoon feebar ma koy faj si bi ma koy faj mënuma xaar njool mi di war a tëb doomu simp si ginnaaw si noonu laa dem jënd jee maal bii nekk nii sama ginnaaw oraas yi. doomu Pape Ndaw waaw ba moom moom ban moom. maal boobu doomu Pape Ndaw la. doomu la. maal bii sama ginnaaw nii. waaw ci Birane Gueye moom la jógee moo ko joxoon waa sama benn xarit Baye Serigne Baye Serigne nag moom moo ma ko jox. mais ma gis fi benn jeune mâle tamit jeune mâle noir et blanc muy jeune mâle bële. nga ne ma am na ñaata mois. jeune mâle be maximum ay euh, douze mois. douze mois douze mois yooyu. mais ma gis que ak cër yi mu yor doole doole ji mu teel a yor. waa ndax jeune mâle boobu boo gisee li mu yor. li mu gën a wane magistrat la gën a wane ndax yaayam doom magistrat moo ko jur cosaanu séeréer papam ñaari doomu monstre la ñu boole mu jur ko mère Maguette gisee moo ma ko jox. mère Maguette Guissé bu Tëngéej waaw ko jëlee. kooku champion la si xaar. waaw waaw dëgg la mais tey tey tey tey hmm. sempi sempi hmm. ak tey yax bi mu yor est ce que am nga ay jigéen fii si kër gi. waaw doom jigéen moom damay muñ pour téye ko waaye gars yi moom lu mu jur gars yi ñëw fokkati ko si man waaye yàlla góorgóorlu euh, dimbali na moom ba ma góorgóorlu téye naa ñetti doomu jigéen pour l'instant ñu ngi fii nii. kon yow da naan kafe comme ni ni ko gars yi di waxee. Ah, mais maal bii di njool mi tamit dama ko gis mu am auteur bu doy waar am bàgg bu doy waar waaw njool mi fan la jóge moom lan lan mooy lan mooy descendant waaw descendant moom yaayam mun naa ne laal na euh, ci lay Diagne Laye Diagne benn bu tëngee Laye Diagne bu dursi bi may ñëw foofu ci ko xool boobu yow xale nga <laughs> loolu lu wér la fekk foofu léegi nag Laye Diagne boobu ah, yaayam laal na ci laal na ci waagaan laal na ci général général surtout góor gi la kon laal na ci góor gi ci wàllu yaayam wàllu papam nag euh, Euh, rescapé rescapé doomu Bolt Bolt Cheikh Diop léegi nag rescapé moo jur benn maal bu ñuy wax docteur docteur ci René la nekkoon docteur. René euh, René moo ko jox Ahmed Kane. René euh, docteur boobu moo jur maal bi ngay gis nii kon sa lii ñu Cheikh Diop mi ngi ci yaram bi daal kon donc mbokk yi. Hmm. deret du fen boo leen xoolee jeune maal bi hmm. laal na si laajaan bu bu bu tëngéej te laajaan kenn kenn ku si nekk si ñun éleveur yi xam nañ performance am li mu def fii si tëngéej. Hmm. li mu def si milieu élevage kon dañuy wax toujours rek ne deret du fen daal kon moom jël na ci ay maamam léegi yan jafe-jafe tey jii ngay dund tey si bergerie bi ak xar yi yow nombre bi nga yor dafa am ñu la si jàppale wala yow kese yaa fi nekk waaw pour le l'instant yor naa fi sama ay booy yoo xam ne ñoo fi nekk ak ay sama doomu mag ñoo xam ne bu ñu jàngiwul ñoom dinañ jàpp ci xar yi waaw ak tamit ak samay xarit yu baax yoo xam ne moom macha allah man liggéeyuma man kese même maal balaa ma koy dugal dinaa woo kenn wala si ñoom ne la sa waay loo gis si xar bi ba nga wax ma man ma xool li nga wax xool ak la ma xalaat def ko te lu bari liñ may digal lu may def tamit dama ci am résultat waaw élevage moom benn nit rek mënu ko def foog mu doon mbooloo. mais tey su ma gisee tey comme xari euh, femelle nombre femelle bi nga yor. Hmm. tey ak dund beek entretien beek wàllu wàllu vétérinaire bi loolu naka nga mo nag nga ko mën a gérer yow en personne waa lii problème bi mooy xam nga xar moom moom ku si nekk yaay xam nooy tojee sa bopp ginax mooy kii super laa dum lay xonte kii ceeb lay xonte kii day bi jox xar yow nanga xool li nga xam ne saison de sa poos li nga mën te xar mi moom la tàmm. waaw te xar bi tàmm ko nga dundalee ko sa xar. nga dundalee ko. waaw fexe boo daal moom bu mu xiif bay jooy ji tànqal nit ñi daal. waaw waaye lekk bu tooy ak lekk bu wow yooyu yëpp lekk la rek xar mi daal na rafet rek te suur. mais ma ko yow mm. champion nga. ñëpp xam nañ la xam nañ la si élevage yàgg yàgg naa la xam si élevage. mais man tey bu ma xoolee yow fi nga jógee. Mm. ak tey fi nga agsi ne mm. lan moo waral élevage yu démb ak élevage tey lan mooy différence élevage moom mi ngi fi mu nekkoon ba léegi rek. gaa yi ñoo naan waaw que damay dégg gaa yi naan am na am na élevage yu ak élevage yu tey ma xool léegi lan mooy différence bi si loolu. moom laa lay expliquer élevage yu démb weesuwul lu dul ñu fekkee démb waaye ñu fekkee démb am na lu ñu fekkeewul lañ leen nettali ñu fekkee tey ñoom nettali ñu leen li nga xam ne waa démb loolu la ñu nekkoon ñu xam ko kon tey xar yi li si problème xar amul secret secret bi mooy. ñemeel sa poos am encadrement bu baax xoolal xool kër yu baax yi ngay jënde nga liggéey xar loolu kese la waaye xar moom amul secret mais mais nag Coura yow yow yow tey tey buñ nee xar defal na la defal na la teraanga teraanga bu nekk xam naa ne am nga ko am nga am nga ko si xar mais daaw daaw daaw dama dégg tamit benn écho xaw ma naax la dëgg la wala déedéet mais en tant que jeune en tant que yow champion mi ma yow mi ma fekk si dama dégg ñu ne mal bee di di simpi fayoon nañ la si 20 millions nga bañ mais la moo waral loolu. 20 xaalis la. mooy maal bële ñu koy wax simple. non man Ndiaye xam nga am na loo xam ne man ci biir élevage man duma ko dox te euh, du ma ci juma euh, ci dund mooy man élevage bi dama ci ñaan yàlla wax liy dëgg mhm. yooyu ay wax la rek amul kenn fay la 20 millions non fayu ma ñu loolu. fay nañ ma ay xaalis waaye agul foofu. agul 20 millions. te période période boo pare euh, période bi ñu may fay yenn euh, xaalis yi période boobu munu ma woon jaay xar yi ndax amaguma ay doomam ndax pour nga xam ne jaay naa xar bi parce que. mais kon euh, xanaa mat na 15. wala 10 non fay nañ ma woon daal ay prix. waaye boobu mais ay millions ëpp na benn million. non ëpp na yooyu yëpp. waaye ëpp na ñett. xar bi ñi ma ci fay sax. ay nit nangu woo ko wax non ay nit nit ñu ma ci fay bari na waaye moment boobu li ma doon yóotu dëgg la joxuñu ma ko te man awuguma ay doomu xar mi yoo xam ne war naa mun a jaay xar mi ñàkk ko noonu te boobu amoon nga ay fëmal yoo ko mën a man sant yàlla su la fenul xar mi mun naa ne jaay naa ci ay doomam lu mat 17 millions si sama xaalis man simpi mi kon mais loolu mooy liggéeyu te téye naa ay doomam te may naa ci ay tëb loolu moom wuur na ma mais ñu gis tamit yow Euh, bi ñu yéegee si kaw yamoo kese si si si si wàllum xeex gis nañ fi ay ay gis fi ay ginaar tey lan moo dugal si si si si man pigeon mun naa ne ba âge bi may xale bu ndaw laa nekk ji yar ay picc ak ay ginaar ak ay ginax kon man élevage dafa ne sama dire dama ko bëgg. moo tax fay na la. dabu ma. moo tax fay na la. doon dakaar Dakar dëkkoon fa doon dox ba Colobane jënd ji. pigeon doxaan ñibbisi ba bi may toxu si fii samay pigeon laa àndaale fii boobu yoruguma xar jaay leen douze mille cinq cent jëndee ko xar bu jigéen xar bu jigéen boobu laa nekk ji liggéey ji liggéey ji liggéey ji jaay ji liggéey ji jaay ba yàlla mu andi xéewal tey ba ma am xar yi ma am ni tey kon foofu laa tàmbale ci élevage waaw kon mbokk yi ñoo ko déggandoo tey mais mais tey boo tey koo xamante ne tey dafa ñëw pour dugg ci élevage yow loo koy conseillé. waaw tey man li may conseillé eh, euh, nouveau éleveurs yi mooy li may conseillé sama bopp rek lépp looy yëngu àndal ak dal rek waaw te xam ne affaire bi patient la laaj da tey ki nga xam ne moom dafa àndi xaalisam moom day fekk ma liggéey ba mu pare mu ñëw jënd waaye ki nga xam ne moom yorul xaalis day xos li li man kooku moom ju yàkkamti bu yàkkamtee rek yàqule beneen bi nag bu dee jafe-jafe yi ñuy dund ci élevage mooy ñun chaque jour ma wax ko ci émission mooy ministre yi dañu war a dimbali ak président am na solo ñi nga xam ne ñun foofu ñu jokk. mooy nee naa la saaku repas ak saaku ceeb bu nit di dundee ñu yam prix. absolument. lekk xar déchet kon war na mën a yomb war na mën a oyof ba ñun ñiy yar xar yi ñu ciy gis sañu bopp bu baax waaye fii éleveurs yi suñ la waxee dëgg. éleveurs yi instant ñu ngi bëgg a dee ci dund bi dund bi cher na te force da nga koy jënd ndax yow da nga bëgg a xar bi te da nga koy yor te joo ko seetaan mu dee. kon nag am na loo xam ne nii ñoom ñoo ñu war a dimbali ci loolu. jàppale ñu ci oyofal ñu ko tey sama benn xarit bu jógee itali daf fi ñëw sama benn booy seet si ma ñu waxtaan mu visité bergerie mu ne ma kuréel mu ne ah mu ne moom bu doon lii itali bi ma jóge la ñoom seen état ñooy xëccoo njëkkate pour ñëw liggéey ak yow. ndax lii yow société la da nga war a état bi daf ci war a dugal loxoom eh, ñun ñooy démerder sañu bopp ndax bañ dugg ci affaire agression bañ sàcc bañ dugg ci ay kenn xamul waaw bañ jël gaal nekk si sañu xar yi di ci xoslu kon nag sañu xar yi tamit buñ ciy xoslu te mënuñu ci am dara doy na waar. a ah, mais nag mbokk ko buñ ne mënuñu si am dara parce que ah élevage bi defal na la teraanga au moins. non boo déggee ma ne la mënuñu ci am dara. mooy tey amaana li nga ci am da koy dugalaat ci xar yi te yow boo jaayeen xar 500000 jëndaat ko xont ci xar yi 500000 yow looy am ci xar xont bi war na mun a wàññeeku ba nga xam ne yow ah yow boo jaayee xar ji nga mën a jël sa xaalis bi jënd li xont leneen li nga def leneen waaye dund bi moo cher avant. waaw kon mbokk yi Koungheul li nga wax dégg nañ ko kooku moom dañ koy bàyyeek. ministre de l' élevage moom mi nga xamante ne tey ah moom moo ŋànk lépp lu jëm si élevage. léegi yow looy tàggatoo. waaw tàggatoo bi mooy mooy sant sama waajur di ñaanal sama waajur bu góor fi mu tëdd gënal ko fi mu jóge àllaaxira ji naflaay suuf sedd ci kawam. amin amin di euh, ñaanal koñ bi ma dëkk ndax ñoom ñëpp ay borom baax lañ koñ bi benn koñ la. amul sàmb amul dem kër gi nag kër daara la yàlla def na ñëpp mun naa ne sama xarit yëpp bu ñu bu ñu yeewu fii la ñuy dal si ndax loolu li ko andi mooy jàmm fu mu am li olof pen Omar pen ne jàmm fu mu am kenn du fa jóge waaw ma ci euh, jiital ci sant sama euh, euh, mag yi ma nekkal ci biir kër gi rawatina Ibrahima mii nga xam ne moom sama magu bopp la sama xarit la rawatina ji sant ay ñoom Zanu ñoom sama dra doom bi papa Abdou ñoom ah, ah, Mamor ñoom Jokin ah, Motley Aba Kele musa Baye mi domoy bañ a wane kanamam. waa sant daal ñi dajaloo ñëpp ak ñi nekk ci biir. waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen sant daal. émission bi nag moom lu dul kontaan laa ci def. yàgg naa def émission. lool waaye ni ngeen ànd dal ak seen matériel bu baax bii nga xam ne jëloo leen ay fil branché ko fépp di tànqal nit ñi xari ji pakkastalu gisuma ko ci yéen am ngeen matériel yu doy macha allah yal na leen yàlla lawal cet bàyyi leen ci sañu kanam ah ba ci kanama kanama kanama kanam ndax àdduna ña ñaar dafa am doole ci àdduna muy bay ak sàmm yéen nag lii ngeen di def nii loolu dafa bokk ci luy suqali dëkk mhm. waaw te yow éleveur bu nekk si ruqam kenn xamu ko nga ñëw wane ko ah loolu yow di nga ci am alal am ci tiyaaba de bu rëy rëy kontaan naa ci yéen man bu baax a baax a baax. waa donc mbokk yi seen émission dundal gétt tey lii la leen indiloon xanaa kay dañuy dem ba beneen dimanche ak beneen champion.